lu àdduna neex neex neex ab dëkk bu neexul rekk dund ba du du du bakkane déedéet doomu aadama boo dëkkee ak ay doomi aadama da ngay fexe ba sa digganteeg ñoom muy rafet ay doomu aadama buñ dëkkee dañuy rafalante rafetalante ci seen biir loolu def ci baax waxante lu baax te mu doon dëgg danoo toll ci jamono joo xamante ni nii li xale yi di wax naan da ngay afficher indu dawal kabooy dañuy afficher dawal kabooy nit day wax loo xam ne dëgg la ci moom nit def loo nit day def loo xam ne dëgg la ci moom nit day wane loo xamante dëgg la ci moom ay mbokk bu nu nekkee dañuy soppante bëggante yéenante jàmm ndaxte yéene néeg la li ngay yéene sa morom du da ko koy yéene rek après yàlla def loolu ci moom déedéet loolu amul fen loolu amul fenn yàlla moo yor àddunaam bi te nu ko neex la koy doxale te li ko ci neex mooy ay xol yu laab yéene yu rafet bëgg-bëgg loolu mooy tax loo wut am ko parce que li ngay yéene sa morom rek ngay dal moo mooy dal sa kaw ñu nekk ci jamono joo xamante ni nii toroxal doomu aadama yomb na lool wax nit lu ñaaw def nit lu ñaaw mu mel ni dafa bokk ci ni ñuy dunde léegi te ba mu commencé ak léegi li ko fi indi lépp bokk na ci xarala gi méngoog jamono ñu koy tuddee internet boo duggee yaa ngi ci YouTube yaa nga ci Instagram yaa nga ca yeneen yeneen yi wax Facebook baak lu ne lan la da ngay toroxal doomu aadama waxal nit sosal nit léegi sos daa yomb sos sos yomb lool wax lu ñaaw yomb lool te benn ci amul njariñ benn ci amul njariñ nanu xoolaat bu baax li nga xamante ni moom lañ def ci diggante nit ak nawleen wala nit ak moroom ma yaakaar naa ni loolu bokk na ci liy tax ab dund neex boo yoree njaboot njabootu jàmbur gu ne jàmm nga leen war a yéene boo yoree njaboot lépp loo ko yéene sa njaboot rek yéene ko njabootu keneen ndaxte boroom njaboot a ngi cib xare te xare bu jeexul lu ne mën na caa am ah kon nuy nañuy nañuy yéenante jàmm ah yéenante jàmm dafa am solo lool boo gisee géwél yi nii ñu def nii àndandoo woyandoo kii tëgg xalam kii def nangam nangam xol xol yu ànd mooy indi lu neex. bu xol yi àndee rek lu neex mën a dikk waaye bu xol yi àndul lu neex du mën a dikk mbokk yi tey mu mel ni ñu ngi ci njeexitalu koor te weeru wi yëpp mu doon weer woo xam weeru ngëneel la dinañ ci dellu si léegi ñu déglu beneen ndaanaan yaakaar naa ne maa awa kuyaate war nañ koo mën a déglu mu doon ndaanaan bu mag ñu dellu si waat léegi waaw waaw